ورضوان الله الأكبر عن العبد الخديم سيخنا ووسيلتنا وقرة عيننا شيخ أحمد بن خادم رسول بكي جناب نسانت يا الله سبحانه وتعالى جلي كي ينتبتد بسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لأن سانتا سرين توبا شيخ أحمد بن خادم رسول شنو يا كارتيك نيونغ لين دينيو دي لين زيارة دي لين بالو أق تدي لين بالو di ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mu boole nu jéggal di jiital ci nuyoo bi ak ziar boobu sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général kullu murid di ko ñaanal sunu borom subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi lool te wéral ko ba lépp lu mu yéene liggéeyal Serigne Touba mu eggali ko te ànd ko mboolem jullit yëpp ak mboolem taaliba yëpp mbokk yi ñu ngi am mbégte dellusiwaat ak ci seen jotaay bii di. ahlu xasida ngeen baaxoo ko am alxames bu jot fii ci seen site internet Mouride info waaye baaxoo ko ànd ak seen mbokkum moo du Thiaré tomb bi ñu fas yéene waxtaane tey mooy jamono yi nga xam ne moom la sëriñ Touba radiyallahu taala anhu bindee xasida yi ndax ku ne xam na ne dafa am ay jamono yu wuute yu seddalikoo yoo xam ne ci la bindoon xasida yi ñu fas yéene waxtaante yan jamono la ak jamono ji ci nekk rek lam ca bindoon lam ci wax ci la xasida yi làmboo ci ay xeeti ngëneel ak may yu rëy yoo xam ne suñ boroom defal na ko ci ndax ku ne xam na ne mbindum Sëriñ Tuubaa ci boppam dafa seddalikoo ci ñaari xaaj dafa seddalikoo ci ñaari xaaj am na ci loo xam ne sëriñ bi da koo bind mu nekk ay woy waaye itam am na loo xam ne da ko bind mu nekk weser weser mooy safaan woy mooy loo xam ne dañ koo bind noonu ñaari xaaj yooyu itam lenn lu ci nekk am na ci loo xam ne sëriñ bi da ko bind mu jëm ci diine ji te mooy li mu bind muy jàngale tawxiid di jàngale fiq di jàngale tasuuf waaye it am na ci xaaj boo xam ne sëriñ bi da ko jéemale woon ci sunu boroom subhaanahu wa taala euh, di ko ci sant ak di ko ci tudd te mooy zikar am ci it ñaari xaaj yoo xam ne sëriñ bi def ko jéemale woon ci jëmmi yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam euh, te mooy li mu bind di ci tagg yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam ak di ko ci sant kon bindum sëñ Tuubaa dafa seddalikoo ci ñaari xaaj lu ñu bind def ko muy ay woy ak lu ñu bind nekk weset waaye ci biir xaaj yooyu am na ci loo xam ne sëñ bi da koo bind di ci yeesal diine mooy li mu bind euh, lu mel ni tazawadu sixaar subbaan jawharu nafis masalikul jinaan am ci loo xam ne ñaari xaaj yi jëm ci suñu borom mooy zikar euh, ak sant yàlla yeneen ñaari xaaj yi jëm ci yonante bi mooy julli ci moom ak di ko tagg moom lay wax ne نويت دوام الذكر والسكر خادما لخير الورى نحم الحسين المزين أه، دوام الذكر والسكر موي سنت اك ذكر لولو موي خاج بيغا خامني موم لا جاغلالون سونو بوروم سبحانه وتعالى واي خادما لخير الورى لولو مين كو دون ديف سي صلاه سته بمدح سته موي ليغا خامتاني موم لا جاغلالون يونتي بيغا خامني اتمي ديف كو دون خاج نياري خاج juróom-benn weer yu njëkk yi mu di ci tagg yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam juróom-benn weer yu mujj yi mu di ci julli ci moom mooy la muy wax ci xasida mafatihul bisril kubra madaxtu xayral xalqi min muharrami ilantisaafi l aami za takarrumi da ko tàmbalee ci weeru muharram ba ci weeru maamu koor ci la doon tagg yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci juróom-benn weer yooyu waaye li ko tàmbalee ci weeru rajab di weer wu tedd wi nga xam ne moom la ñu nekk ci la sëriñ bi doon tàmbalee euh, di julli ci yonante bi ba ci diggu tabaski moom lay wax ba tey ci mafatixu bisril kubra lahoo salaat yi wa salaami min rajab li xatmi zil mal mun muntajab su ko defee it wax nañ leen ko léegi ci bu ñu doog a tàmbale mbind mi dafa seddalikoo ci ay jamono mooy li ñuy wax lu jiitu géej gi ak li nga xam ne sëriñ bi da koo bind ci jamono yi mu nekkee ci tukki bi jamono yi mu nekkee si géej gi ak li nga xam ne da koo bind ci ginnaaw tukki bi kon bindum sëñ Touba ci ñetti jamono yooyu la seddalikoo li mu bind lu jiitu muy dem ci géej gi ak li mu bind ci jamonoy géej gi ak li mu bind bu mu ñibbisee ci tukki bi ba ni muy wujjee boromam subhaanahu wa taala xaaj bu njëkk bi moo tàmbalee ci ama asasin ba jay jaysasin moy atum 1301 ci gadda yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ba 1313 loolu nak moy dëpp ak 1883 ba 1895 kon loolu moy xaj bu ñeek bi nga xamne mom la serigne bi bind lu jitu muy tukki motax mu wax ne awwalu mabtada bihi al taalluqun bi man lahu taxdiimu wa azhara alxidmata ama jaysasi wa qalbuhu admaraha min ashashi sëriñ bi dafa mel ni dafa wax ne ba mu feeñee rek mu xàmmewee la mu njëkk a def mooy dafa fab jëmmam ju tedd ja jébbal ko yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam def ko muy wasilaam mu nekk def ko muy wasilaam ba nga xam ne moo koy eggali ci suñu borom subhanahu wa taala moo tax ci ay xasaayidam yu bari da ko fay euh, junju muhammadun wasilati wa junnati anil ahadi wal aza wa jannati sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy wasilaam ci moom la jokk waaye mooy pakk bi nga xam ne mooy dox diggam ak mbooleem lor yi waaye itam mooy aljannaam kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo nekkoon wasilaam waaye itam mu mel ni dafa wax ne wa azharal xidmata ma jay sasi dëgg-dëgg liggéey bi daal mu ngi tàmbali ci bi nga xamante ne tubaab yi génnee nañu ko fi ci atum 1883 yóbbu ko ci géej gi waaye nag dafa mel ni dafa wax ne waxal buhu admaraha min asasi teewul lu jiitu euh, fukki at ak nangam ci ginnaaw ci atum 1300 amoon na yéen ay liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa boobu doon na bind ay xasiida di ko ci liggéeyal waaye dafa mel ni ci atum 1313 ci la ko noon yi génne ba liggéey boobu nga xamante ne moom la amoon yéene ngir defal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mel ni buñ ko génnewee ci la ko soog a mën a def comme na mu ko bëggee woon ndax bu mu fi nekkee boobu mu ngi woon ak njaboot gi euh, ak taalibe yi nga xamante ne jot gi ñàkkoon na lool waaye bu ñu ko génnee ci la euh, am temps ngir gën a mën a euh, liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam liggéey bu mucc ayib boobu nga xam ne moo taxoon mu mujj wax ne man zanna annahu yakunu abada bi billazi ka xidmati bada nafaytu zannahu bi anniyal xadim bi ma wana an mislihi kullu li ma liggéeyal yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam képp koo xamante ne yaakaar nga ne mas nga koo liggéeyal liggéey bu ñu toll maa ngi lay xamal ne sa njort boobu de nax na la man Serigne Touba maay ki ko mës a liggéeyal liggéey boo xam ne kenn mësu koo def te ñu ko jiitu woon te kenn dootu ko def ci sama ginnaaw Euh, ñaareelu xaaj bi wala ñetteelu xaaj bi ñetteelu xaaj bi mooy li nga xam ne moo tàmbalee ci atum Daksasin te mooy atum 1324 ba 1346 loolu mooy dëppoo ak 1904 ba 1927 euh, moom lay wax ne lillahi ma katabtuhu min jaysasi wali rasulihi li xatmi jaksasi nee na lim bindoon ci jamonoy tukki bi jaysas wax naa la léegi ne la mooy 1313 ci la demoon tukki bi waaye jak sas tamit mooy bi mu ñibbisee ba nekk gànnaar ca Mauritanie ba am fa ñaari ñaari at jàpp ñett mu ne li mu ci jamono jooju nag ci géej gi loolu dafa jëm ci yàlla sunu borom subhanahu wa taala ak ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam moo taxoon sëñ daan na tere ñuy bind xasiida yooyu wala ñu di leen jàng ndax dafa wax ne loolu da ci doon jaamu yàlla di ci liggéeyal yorant bi di ci jihaad ak noonu lislaam yi bu ko defee li nga xam ne moom la bind mu tàmbalee ci 1904 ba 1927 ba mu wujjee borom moom subhaanahu wa taala mu ne min liya lillahi wal lirasuli wal li zawil islaami wal qabuli min daksasin ila duxulil janna xatti bila azan wa xeyri fitna mu ne li mu bind daal mu tàmbalee ci 1904 bu mu nekkee gànnaar ba ilaa duxulil janna lu mu wujjee sun borom subhanahu wa taala mu ne loolu am ci lo xamne ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam la jëm waaye am na ci loo xam ne it ci yàlla suñu borom subhanahu taala la jëm am ci loo xam ne ci xeetu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam la jëm moo taxoon mu wax ne loolu mu mujj bind tàmbale ko 1324 euh, ba 1346 suñu borom def na ci barke joo xam ne lu dul alquran ak hadis rek mbind moomu moo la gën a kawe ci suñu borom subhanahu wa laa moo tax moo xam ne wa faaxat xayral quraani wal xadiisi mu ne képp koo xamante ne yaa ngi koy jàng lépp loo ci ñaan suñu borom subhanahu tax laa dana dana la ko ci defal su ko defee kon euh, lu ñuy dégg fii itam kon day mel ni sëriñ bi ñetti jamono yi ñu leen wax ne moom la bind xasida yi day mel ni ñaari jamono yu mujj yi ñoo ko ci gën a ñor ndax daa mel ni ñaari jamono yi moom la andi fii waaye dafa tolloon ay jamono yoo xam ne dafa waxoon ne lu mu bindoon lu jiitu muy dem ci géej gi dafa waxoon ne loolu yàlla nanguwu ko waxoon na ko ay jamono xëy na mën naa am loolu moo tax mu indi fi ñaari jamono yu mujj yi rek te andiwu fa jamono ju njëkk ja waaye nag bi nga xamante ne nekk na njaareem ñibbisi na ba nekk njaareem ci atum lasasin ci la ko yàlla suñu borom subhaanahu wa taala xamal ni la nga tàmbale woon la nga bindoon ca ba ngay soog a ci atum assasine ba ci at mii ñu nekk ak la bind lépp euh, nangul naa la ko moo tax mu wax ca xasida ak nuuru daare ni min assasine li balsasin qabiltaha xasaidi kama lahu bajjalta li mu bind lépp la yàlla suñu borom subhaanahu wa nangu ba muy fekk na yàlla def ko xamalagul woon ne nangul na ko ko moo tax mu wax ne mu xam fii zaaka ama lasas ci atumu lasas ci la ko yàlla suñu borom sax taala xamalee ko mu wax ne it yàlla ginnaaw bu mu ko nangoo ba noppi def koo fab màggal ko euh, kon bindum sëñ Tuubaa lépp la suñ borom subhaanahu wa taala màggal moo tax mu wax ne euh, min asasin li balsasin qabiltaha xasaidi kama lahu bajaltaha mu nekk it mbind moo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala gannaaw bu mu ko màggalee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam def ko def ko ko nangul nangul ko liggéey bi waaye itam euh, màggal ko màggal xasida yi moo tax soo demee ci muqaddamatul amdaax wala jazbul xulub di nga gis muy wax ne muhammadin man bajjala xasaidi kon loolu yaakaar naa dafa nekk loo xam ne day wane màggaayu mbindam Serigne Touba ba tey Serigne bi wax ne euh, saa bu ma yëkkatee sama xalima di bind aras day jaayu fa mu nekk waaye malaaka yi suñu boroom yi subhaanahu wa taala ñoom itam dañuy sàbbaal suñu boroom di tudd yàlla isaaka tabtu tazza arsul maliki wax tazza bi tasbihi kullu maliki mu mel ni dañ koo laaj aras jaayu googu muy jaayu lan moo ko waral mu ne yaxtazu arsu rabbina al azimi min qalami ihtizaz zi tanzimi aras jaayu gu muy jaayoo ci sama mbind jaayu la goo xam ne dafay màggal sama mbind day màggal xasida yi kon mbindum sëñ Tuubaa mbind la moo xam ne yàlla moo ko njëkk màggal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam màggal ko kon loolu yaakaar naa dafay wane ne xasida lu màgg la ci suñu boroom lu màgg la ci yonante bi waaye lu màgg la ci sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul su ko defee nag mbindum sëriñ Tuubaa moomu suñ ci bëggee jëriñu dëgg dëgg jëriñu ñun taalibe yi dafa am noo xam ne noonu lañ ci war a doxee mooy dañuy jël li sëñ Touba bind lépp ñu di ko jàng te bañ cee am xaaj bi ak seen ci mbindum Serigne Touba ndax dafay mel ni lu ñu jàppee xasida mooy ñaari xaaj yi nga xam ne sëriñ bi da koo bind jagleel ko yàlla suñu boroom ak li nga xam ne da koo bind te mu jëm ci yonent bi dafa mel ni loolu lañu jàppee muy xasida su fekkee am na ay yeneen i téere yoo xam ne mbindum Serigne Touba la yoo xam ne war nañu leen a jàng lu mel ni Tazawudu Sixaar Tazawudu Subaan ñoom na Nafis Masaalikul Jinaan Mulayyinu Sudur yooyu nga xam ne mooy jàngal nit ki diineem ba mu xam ko ba mën a xam ni ñuy jaamoo yàlla suñu borom subhaanahu wa taala kon ñu bëggee jëriñu dëgg-dëgg dañuy fab mbooleem li Serigne Touba bind rek di ko jàng te bañ a am xaj ak seen ci mbindum Serigne Touba di gëm li di bàyyi lale لولا القران الكريم دي واخني اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا غسيا كون لول يال نك يال مسل دا القران سوكي گم دا ناي گم لپ يال لپ واخ يال سون بوروم سبحانه وتعالى دا ور مان كو گم كو ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا كون لول نك آه، من دوم سيغ توباي سو فكه دا نان لي لا سي ورا جانغ لي يتهلوما loolu lu ëpp def la mbokk yi Sëriñ Tuubaa dafa wax ne xadayta bi xaq di wa tasawufi wal fiqhi yaali bi zikri ma salaati wa bil madhi nee na lim bind di ci jàngale tawxid di ci jàngale fiq di ci jàngale tasuuf loolu yàlla suñ borom da ciy gindee mooy da ci teg nit ñi ci yoonu siraatal mustaqim ndax soo ko jàngee ci ngay xam sa diine soo xamee sa diine ci ngay xamee ni nga war a jàmmoo yàlla suñ boroom subhaanahu wa taala waye mu wax ne it riyaali bi zikri ma salati wa bil madhi li nga xamne mom la bind itam jemi ko ci sun borom moy di zikar ak li nga xamne ne da koo bind jemi ko ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam wa muy ma salati wa bil madhi loli it lu ñu war jàng la waye suñ ci bëggee jëriñu dañu jël li ci seigne touba jiital ci bayit bi moy njëkk jàng limu andi fi njëkk jàng fiq njëkk jàng tawhid njëkk jàng tasawuf su defé nak nag dina tax sa booy jàng xasida nga gën a xam wàccuwaay bi nga xam ne moom ngay jox xasida xam ni ngay doxee sa digg xasida yi ba loolee ñuy wax waxe daanukat wala jëfi daanukat euh, nga di ko ci maytu bu baax a baax a baax a baax kon su ko defee mbindum Sëriñ Tuubaa lépp lañu ñu war a jël jàng ko xasida yi nag dañuy taxaw taxawaayu jëmmi Sëriñ Tuubaa maanaam ni nga xamante ne noonu la sëriñ bi doon defaree ñamu jamonante woon ba ñu nekk ay nit ñoo xam ne dañuy defaru ba képp kuñ taxawal defar la te yow dootoo yàq bu faw noonu la xasida di defaree ñi nga xam ne ñoo taxoo ak ñoom di leen jàng te di leen sellal ndax yaquudu xattiyal murid lil qaadiril baaxil murid muzaxzihan kulla marid ila siwal muallami nee na mbindam xasidaam yi dañuy wammat murid bi dañuy wammat taalibe bi di ko jëmale ci yàlla sunu borom subhaanahu wa taala di ko musal ci saytaane kon xasida day yóbbu nit ki ci sunu borom subhaanahu wa taala sëriñ bi wax na ko ci ay barab yu bari te wuute tuwasilu axlaami ilallaahi abidan bila xalwatin wallaahu ab xaakama axna xasida yi dañuy eggale jaam bi jaam ko tub yàlla bi euh, xasida yi dañ koy eggale ci sunu borom subhaanahu wa taala ci loo xam ne du jar muy dugg ay xalwa defe naa ne ay naafi la wala muy dem ci àll bi di weet weetaay bu métti boobu euh, nekkal ci sa kër euh, liggéey sab liggéey ba saa boo amee waxtu jàng xasida nga jàpp ba sell euh, jàng sab xasida egg ci yàlla suñu borom subhaanahu wa taala kon loolu sëriñ bi fàggul nañu ko ci xasida yi muy wane taxawaay bu màgg boo xamante ne xasida yi am na ko moo tax mu wax ne deyaale nag suñu borom subhaanahu wa taala ci ay xasida yoo xam ne kat suñ borom def na ci ay leer yoo xam ne du ñu dog mukk kon leer yi nekk ci xasida euh, kenn xamul ni mu toll moo tax mu wax ne naajeytu rabbi al karim bi kutubin laysat tarim anwaaruha wali yarum ba tey ci taxawaay yooyu nga xam ne xasida yi taxaw nañ ko nga xam ne dañuy taxaw taxawaayu sëriñ buy tarbiya taxaw tamit taxawaayu sëriñ bi nga xam ne mooy tarxiya ñaari sëriñ yooyu mooy ki nga xamante ne daf lay yar euh, teg la ci euh, yoonu siraatal mustaqim waye tam am ci ko xamantene daf lay yegge ci sunu borom subhanahu wa taala defar saru ba nga meuna egge ci sunu borom sëñ bi nak wax ni khasida yi dañuy taxaw taxawayu shaykhu tarbiya ak shaykhu tarxiya motax ñu wax ni khasida yi dañuy wóotu Serigne Touba ci mbiri talibe yi te loolu moy lamuy wax ne kitabati qaimatun maqama shaykhin murabbin yahabul maqama amna fo xamne dafa wax ne kitabati qaimatun maxaama sayqin muraqqin yarfa'u al maxaama kon fee dafa waxoon ne sayqin murabbin fi mu wax ne sayqin muraqqin amna fo xamne dafa bolé len dafa bolé ñaari sayx yoy yep ci benn bayit wax ne kitaabati faaxat suyuuxa tarbiya wa kullu xayrin wa suyuuxa tarxiya kon fi lu mu xamle won fi sax dafa xamle won ci jëkk na xas day taxaw nañu taxawaayu sayxu tarbiya ak sayxu tarxiya waaye dafa mel ni dañoo jëm ba ay jëmmi jamono suñu boroom defal ko xasida yi mu gën leen a kawe sax moo tax mu ne sama mbind kawe na say sëriñ buy tarbiya kawe na itam sëriñ buy tarxiya kon képp koo xamante ne bëgg ngaa jub tege ci yoonu siraatal mustaqim euh, soo jàppee ci mbindum Serigne Touba te di ko sellal euh, lépp loo ci sàkku rek ci sunu borom subhaanahu wa taala dina la ko defal waaye nag kem ni nga ci góorgóorloo ci sellal bi ak ma ji nga xam ne moom nga ko war a jox ndax xasida dafa am ay ma yu mu laaj ci waxtu woo xamante ne ni nit ki euh, mi ngi koy jàng ma ji nag mooy li ma waxoon ci masaalikul jinaan waxoon ne wa'udda min aadaabi zikri zakiri julusu abdin fi makanin tahiri mustaqbilal xiblati zaata rabbuin aw mutawarrikan kaman salla fahmi bokk na ci tegg ni kuy jàng alquraanul karim mooy dangay sol ay yëre ay yëre yu laab ginnaaw boo solee yére yu laab tamit nga toog ci barab bu laab barab bu sell euh, su ko defee nga toog jublu penku boo ko mënee nga farenku laay wala nga toog toogin boobu nga xam ne moom la taalibe di faral di toog ci kanamu sëriñam bu ko defee nga jublu penku daal di jàng xasida ànd koog yéen ju sell nag jubli cee jaamu yàlla suñu borom subhaanahu wa laa ndax قصيدة جام يالله لا وجه الحروف كلها عبادة سلنا خير تجامل ينعا خمنا يان جان قصيدة من هي من غير فاس لولا سوب كم لولا أدنى الآخرة بقدر في سون برام سبحان تعالى أدنى لك دفع نخسر من دفع هون وهند قراءة قصائد فن ما تجد إن شاء الله سابع جان سما قصيدة نعا كي ين لولا سوب سو بارس سون برام سبحان تعالى أدنى لك دفع إن شاء الله kon xasida saa boo koy jàng su la neexee mën nga cee fas lu la soob donte ne sax léeg-léeg da ngay faral di dégg ay yenn yi xam-xam ñuy wax ne xasida saa boo koy jàng waroo ci fas lenn lu dul ngërëmul yàlla suñu borom subhanahu wa taala waaye ginnaaw ndigal la lu jógee ko ci Sëñ Tuubaa itam def ko itam wàññiwul dara xasida yi kon dañuy faj aajo aajo aajo yëpp la xasida di faj gis nga Sëñ Tuubaa mu ne euh, raadat dal islaami fil jazairi kitaabati qadaytu xaaja zairi xasida yi ci la doon faje aajo yi ñi nga xam ne ñoo doon jóg di ko seet si di sàkku ci moom dimbal loolu lépp mi ngi ko doon defee ci xasida yi kon xasida kat mbokk yi lu kawee kawe la loo xamante ne war nañ ci ne gën a war nañ cee gën a góor góorgóorlu bu baax mu mel ni nag dafa dajale mbooleem xeeti jaamu yàlla yi moom xasida dafa mel ni su fekkee yaa ngi jàng xasida yaa ngi def mbooleem xeeti jaamu yàlla yi ndax suñu delloo ci mbindam Sëñ Tuubaa kat dañuy gis muy wax ne wajal kitaabati kamislal xajji wa sawmi wa salaati ahli najji yow suñu borom nang ma defal sama mbind samay xasiida ñu taxaw taxawaayu xaj euh, ji taxaw taxawaayu aj màkka taxaw taxawaayu woor weeru koor taxaw taxawaayu julli am na foo xam ne dafa wax ne it wajal kitaabatiya yaa sakuru fawqal ibadaati euh, yow yàlla defal samay xasiida mu gën a kawe mboolem xeeti jaamu yàlla yi kon day mel ni mboolem xeeti jaamu yàlla yi daje nañ ci biir xasida yi Sëriñ foofu itam euh, am na ci loo xam ne war nañ koo gën a bàyyi xel bu baax a baax ndax léeg-léeg da gis koo xam ne day jàng xasida ba waxtu julli jot su boobaa du jóg julli ji waaye danaan li may jàngkat taxaw na taxawaay julli loolu mbokk yi war nañ cey gën a bàyyi xel bu baax te xam ne euh, waxtu julli loolu ndigalul sunu borom subhanahu wa taala la te Serigne Touba euh, dafa waxoon ne saari ila samil azani bijtihaad ila salaati yarda an ka xayruhaad waxtu woo xamante ne dégg nga ab nodd lépp loo mënti def nanga ko bàyyi te gaaw ànd ak farlu dem julli ji su ko defee suñu borom subhanahu wa taala dana la gërëm kon waxtu julli lu ñu waree a gën lu ñu war a góorgóorlu la nit ki saabu nekkee ci jàng xasida wala lépp lu mu mënti doon ba dégg ñuy noodu rek na gaaw farlu dem joxe waxtu suñu borom bi subhanahu wa taala xasida itam bul ko di jàng ba mu tax ngay gàddaay alquranul karim euh, ndax sëriñ bi ku ne xam na lu mu liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci alquran la nawaytu xidmata nabii bil kitaab wa bil xadiisi zaidan kulla xitaab yéene naa liggéeyal yonent bi sallallahu taala wa sallam ci alquran ak xadis bayinul kitaabi insa al muin ahsana tabinin dina leeral téere bi di alquran karim ci gën gaa rafetu leeral nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala mujj na ba xeetu façon moomin bu nekk mu moom loo ko Serigne Touba dañuy dégg mu naan malaktanil kitaaba tamlikan yadum waxabalil kitaab xeetu façon moom bu nekk rek suñu borom moom loo na ko alquranul karim kon su ko defee sagam alquran ci moomee li suñ tubaa la bokk kon loolu itam lu ñu war a jàng la rawatina nag bi nga xamante ni sëriñ tubaa waxoon na ci masaalikul jinaan ne adim tilawatan lisal kitaabi walaw salaasatan min al ahzaabi na nga saxal yow murit bi na nga saxal jàng alquranul karim Euh, ci bët bu set doonte ne sax ñeent ñetti isib la donte ñetti isib la yow saa boo xëyee nanga nga jàng alxuraanu karim kon loolu ndigalul Sëriñ Tuubaa la jar na ki nga xamante ne mënta jàng alxuraan sax mu dem xam lu ci ba donte ñetti isib képp la sax mu xam ko tey def saa bu xëyee di ko jàng ngir mën a jëfee ndigalal Sëriñ Tuubaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul boobu kon su ko defee nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax wax nañ ci jamono yu nekkee njaareem ci taaliba yi am na ci ñu ko doon sàkkital waaye ba ñuy sàkket ba waxtu julli jot dañoo wëyal liggéey bu ñu ko doon liggéeyal mooy dañoo wëyal sàkket ba ginnaaw ba nga xamante ne joxe nañu waxtu yi ba noppi sëriñ bi daf leen a laaj ndax julli nañ ñu ne ko déedéet mu laajte ba waxtu wi di jot fan lañu tolloon bañ ko ko waxee sëriñ bi daal di ne li ngeen ma ci liggéeyaloon lépp dindi leen ko mooy li ñu sàkketoon lépp nañ ko dindi ngir lan loolu ko waral waxtu julli bi nga xamante ne nii faat nañu ko kon lépp loo mën ci nekk ba waxtu julli jot na ko baye te dem joxe waxtu suñu borom bi subhanahu wa taala ndax loolu kat bokku na ci jangalem Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul kon su ko defé ñogi yemandi fofu di leen jox di daje ba benen alhamis inshallah ci sen jotaay bi nga xamné moy ahlul khasida ñogi ñoo leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla suñu borom mu defal ñu ngeene li nga xamné mom la khasida yi lambo te defal ñu dégg ak topp dimbale ñu nag ba ñu mën cee sax te di ko sellal te lépp loo xamante ni wax nañ ko fi rek muy lu jub ñu ngi koy sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala waaye lépp loo leen ci dégg mu wuti ak xam-xam na ngeen ñu ko jéggal te xam ne doomi aadama moo matadi kon mbokk yi ñu jox leen dig daje ba beneen alxames ak jàmm ci beneen jotaayu ahlu xasida asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu